ci ndigalam ñu ngi nuyu Serigne Dame Abdourahmane kon ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi yëkkati kàddu yu cant ak ngërëm di ko jëmee ci rakkam Serigne Dame Abdourahmane xalifatu Cheikh Ibrahima Mbacké ak mbooram jaboot gépp di nuyu kilifa yi fi teew ci ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di Serigne Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye ci turu rakkam Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo ko teew ci jataay bi ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp waaye buñ ci tuddee Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha yabara mu ñëw ubbi si jumaa ji mu mën a yóbbaale jërës ñëpp kon jàkka ji xam naa daanaka li ci ëpp ma wax Cheikh bi wax na ko li ci am solo rek mooy sant yàlla ak Serigne Touba. sant le sëriñ daam it boroom ndax fa isa qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillaahi wabtaxu min fadlillaahi jooju nag moo suñ kàddu yi ca la tàbbi waaye moom suñ daam day jëmu joo xam ne képp kum bokkar sëriñ Tuubaa tàmbalee ko ci waajuram yam jamonoonteeloon rawatina Cheikh Mamadou Fadil ak Cheikh Abdoul Ahad ku ci ne àggoo nga ak moom foo xam ne néew na nga àgg fa kenn ci sa doom bi moo tax démb rek maa ngi fàttali ne siñ daam de ab jataayam dafa am solo ndax lépp lu fi xew coow lu rek fekke na ko xam na ko te bu la ko nettalee da lay dugg ndax du ci jaawale dara kon moom kenn sële ci biir yoon waaye itam cër boobu mu amoon jabaru Sëñ Tuubaa kenn desutoon ñëpp la yàlla def mu amoon ci ñoom cër boobu ko ko ci gis rek fonk boobu waaye moom itam ñi mu bokkal Serigne di ay magam ak i rakkam cër boobu la leen jox moo tax bis bii yi may xat-xat ñëpp bàyyi seen yi te yow ndax kenn xamul nu mu koy def ndax ñi ci di kay ñi ci ñi ci di ay kilifaam topp na leen ca nem gën a rafete ba dara di jox ñi ci di rakkam itam kum ci gis cëru Sëriñ Tuubaa la lay xoole kon moom diggam ak ñoom wàccoon ak ñoom rafetal na lépp rafetal na bokk gi rafetal na jikko ji rafetal na àndin bi kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne nag ñëpp la jaxasoon waaye digg moom moo ci raw ndax moom du yëkkati dara ndax moom dafa fonk ndigal na mag ñemeloon rek ni la mel du yëkkati dara ci te ki fi nekkati Sëriñ Tuubaa jox ko ci ndigal jàkka ji ni ñu ko waxee noonu la demee laata mu koy tàmbali moom la ci laaj ndigal ba mu noppee itam daa jël caabi yi jébbal ko sëriñ bi tànn bis bi yabal Cheikh Mamadou Fadi mu ubbi ko kon moom noonu lay doxee ku xam ku ne tey jaxasoom da nga xam loolu du doxee kon ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla suñu borom dëgëral ko kattanal ko yokk aw fanam mu yàgg fii ndax wéttalu yoon wi la kon ñu ñaan ci barke suñu Tuubaa yàlla ko suñu borom dimbale te barab bi itam. nga xam ne néegub yàlla la te aw na wa anal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan waaye nag li ci ëpp solo mooy fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu Ibrahima noonu ñu ko tuddee kon yàlla na barab bii dugg ca mbootum barab boobee ñu ko tuddee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh